docteur Diallo Diop moom la ñuy nuyu et c'est toujours un plaisir ñu koy dalal ci Infos Matin docteur Diallo Diop nuyu naa la. fay naa leen. jërëjëf merci beaucoup aywa Chérif ñu soobu ci waxtaan wi euh, ci euh, bésub tey jii di aljuma. waaw docteur yow yaa lëndënk mbiram panafricanisme ci Pastef. Mm-hmm. ak euh, tamit question mémorielle yi xam naa dinañ ci ñëwaat bu baax baax na nga ni daaw nag daanaka teewoon nga fii bi ni célébrer les cinquante ans. de la mort de Omar Diop Blondin qui qui est votre frère. contexte yi wuute na parce que vous étiez dans position nekkoon di xët-xët. Mhm. Hmm? dëgg la. léegi ngeen ñëw ci nguur gi. xaaroon ngeen di ngeen ci jot teel jot nii. waaw jërëjëf ci invitation bi euh, li ko firndeel mooy ren jii euh, lañu ñu yeesalaat mbirum Omar. di bind nañu bi ñu paree ci benn téere. la benn xale tubaab bind ci dund Omar ak i ñu koy xaadam ñu ko doon xaatim samedi bii passé ci Larnata altine bii nag la ñu yeesalaat suñu ñaan ci ki ñu dénk wàllu yoon ministre de la justice garde des sceaux ñu sulliwaat dossier judiciaire bu Omar. ban altina. altine bi passé bi passé waaw waaw waaw mooy ñeenteeli bataaxal bi ñu yónnee ñu yore yoon. ñi attekat yi ah kuréelu attekat yi. Euh, hmm. di ñaan nag ñu sulliwaat dossier wu Omar pour jéem a leeral ci yan anam liñ ko boomee ñun loolu lañ ko waxee. Hmm. waaye ñaanoon na ñàkkee bakkanam. waaw c' était le 11 mai 1973. 13 voilà Gorée waaw. et donc euh, le 13 tontu na leen moom ministre de la justice Ousmane Diagne. mu ngoog bu bees bi. tontu na leen waaw euh, benn ministre moo ma sa tontu doon Mimi Touré. OIBDA doon après deuxième alternance bi. waaye li mu ñu digoon defu ko. ministre bi nag tontooguñu ndaxte diir bi gàtt na wante am nañ yaakaar bi bii paa euh, dinañ ñu tontu ci lu gaaw ba noppi euh, li ñu dig liñ ko def maanaam sulli dossier bi leera dañ ci am ay. loolu est-ce weesu koy xëy na garde des Sceaux nga dem ci président de la république comme finalement. ci seen waaw mais loo gis rek euh, am na yoon daal. Hmm. sooy diggaale ak nguur nguur daa am ay cër voilà atte mbirum atte daal attekat yow attekat yow d'accord dem nag yéen a ngi woon fële ca amphithéâtre mu nekk ca UCAD 2 seen parti bi invité fii la France euh, insoumise mm-hmm. euh, seen njiit euh, Jean-Luc Mélenchon woon fi moom it ñu doon waxtaanee diggante muy échange diggante Afrique ak Europe mm-hmm. comme yéen ne ngeen ay panafricaniste ngeen souverainiste et cetera que quelle est euh, l'opportunité de l'inviter en ce la mooy laaj bi yenn Sénégalais di laaj. ah jërëjëf. Mhm. Euh, dañuy yeesalaat colère suñu diggante ak euh, Mélenchon ak i parti am de la France ndaxte bu ñuy jotanteeg président Macky Sall ak i nguuram ci lu leer président Macron. Macky Sall la doon jàppale. foo ko taj. ci seen taxawaay seeni wax ak seeni i jëf euh, maanaam euh, gis nga Macky Macky Sall doole la doon jaay nguur gi jaay doole ci ay gànnaay la koy wékk tugal moo doon jàppale. Euh, Macky Sall ci jëndum gànnaay yi nga xam ne moom la boomee doomu senegal yi. kon da ngeen di fayantoo. déedéet dañuy <laughs> dañuy yeesalaat kóllëre. ndaxte ci politiciens wu tugal yëpp nga gis. ginnaaw Mélenchon ak i yi gisuñu kenn jëm ñoo jàppale ci xeex bi ñu doon xaar ak euh, nguuru Macky te daf ko wax ci kaw bi ñëpp dégg ko. ba noppi am yoo xam ne si suuf lañ ko doxalee suñu digganteeg ñoom te loolu amel nañ leen ci ak i gërëm. oui mais naa nekkatu leen parti d'opposition da ngeen yor parti pouvoir ngeen ak yor nguur jiite am réew ñuy wax waxu relation internationale te France tamit du Mélenchon jiite wu ko moment bi Macron moom moo ko jiite. waxtaan ak moom ala kulli al munul ñàkk xanaa. waaw waaw boo tax gisoo gisoo ni ko partie bi doxalee dañu ko xaaj. Mm-hmm. Euh, mbirum diggante état ak état nguur ak Euh, président Diomaye Faye mooy joteeg Macron mooy mooy jàkkaarloog Macron Ousmane Sonko nag euh, invitation bi mu jox euh, Mélenchon du ci wàllu premier ministre. oui mais de l'opinion le premier ministre du Sénégal aussi noo def différence bi entre le premier ministre ak kii jiite Pastef. xam nga lu waral loolu. waaw. parti état moo fi mos a nekk président de la république bi. mooy secretaire général ba président wu parti unique bi. si Senghor la soqeekoo ba nga ni ñu koy soog a daaneel. léegi nag dinañu xajatle nguur ñi nga xam ne euh, yii réew la yore ak parti boo xam ne mun naa mu yóotu nguur wala mu nekk ci nguur mais waruñoo boole waruñoo jaxase li nga xam ne association privée la ak li nga xam ne. mbir mi ñëpp bokk. mais mais quand quand Ousmane Sonko par par exemple ci li nga xamante ni mooy accord de défense yi ba dénoncé ni armée française occupé suuf si. loolu moo tax kuy jàngat aussi mënoo rek gis ki jiite Pastef da ngay gis aussi le premier ministre du Sénégal. mais looloo indi alternance ci réew mi. oui. programme mu Senghor moo fi sax benn gën bi ñu falee sénégalais yi wane nañ ne li fi nekkoon suur nañ ci këll kon nag ñun. comme ñun la ñu wóolu ba fal ñu <laughs> li ñu diggoon day moom la ñuy doxal voilà te programme bi programme mooy wutalee politicien du ay jëmm ak i xam nga cinéma. Mm-hmm. Mm-hmm. tubaab yi ñoo la ko gën a xam. tubaab yi ñoo léegi est-ce que kon bu ci wàllu woowu comme fal na leen ngeen jiite Sénégal léegi nekkatu leen ci posture opposant jëf moo ci des. naka ngeen ciy demee ba souveraineté boobu ngeen di wax ci anam yëpp nag wàllu koom ci wàllu kaaraange ak ci culture ak lépp mën a yemb. am nañ ci ab jëf bi ñu teg mooy kan la ñu njëkk gis ci ñiy politique tugal du Mélenchon moo fi ñëwagum. oui mais du am impact xëy na bu débat boobu intérêt bi moo doon ngeen am ko ak Macron par exemple je veux dire wala un xam nga dañoo tàmm fii ci Sénégal. xaw ma ne li ñu yàgg ànd ak tubaab yi parce que du woon ànd ñi tubaab yi yàgg noot xam nga Sénégal ñeenti xarnu la tubaab yi am fii ci réew mi waa Guinée yi ñu dendal matul euh, ñaar fukki mat juróom benn fukki at la 60 ans d'occupation coloniale si siècles au Sénégal loolu moo tax ci xalaatu waa réew mi euh, bi ñu du ñu ràññee politique ak politiciens yi maanaam fi mu nekk nii euh, man ci sama gis-gis bu gàtt le fait que la France insoumise la suñu njiitu réew njëkk woo ci tugal muy ñëw le fait que suñu président bu bees bi ay réewu Afrique lay njëkk seeti alors que suñuy président bi ñu frasee ba fallu li ñu njëkk def ma dem seen avion dem Paris seeti Élysée ñoom ñëpp suñu daanoo maanaam réew bi waa ñu bàyyi waa ñu daaneel leen dañuy dellu tugal fi ñu jóge noonu Abdou Diouf noonu kenn ki dem académie française keneen ki dem euh, euh, francophonie. francophonie noonu moom mu nga Versailles ndax dafa la am kër. ñibbisi na mi ngi fi Sénégal day dem ak di dëkk. waaye euh, saxu fi. alors que tiim na réew mi lu mat fukki at ak ñaar. Mhm. président may ma may ma ma yeggali président Macky Sall waxoon na ne du def ñi ñi ko jiitu defoon. moom su daanoo su bàyyee day toog fii ci réew mi fanaanu fi biñ ko daanelee ba pare. Mhm. voilà looloo war a dakk loolu lañu war a dakkal. tubaab tubaab bi moomu ñu te euh, mën nañoo ànd ak moom ak ñoom ci. Euh, liggéey parce que nguur goo gis intérêt rek ngeen jiital or France ñu fi yàgg yàgg yoo xam ne. faw xoolal li ñu wax démb rek xoolal li ñu wax démb euh, li ñu wax ci base militaire yi. Mm-hmm. léegi loolu kañ ngeen koy saafara parce que base militaire yi c'est pas nous Ablaye Wade moom ngay xalab nii def na ci jéego ah ba mu ñëwee am na lu mu ci nangu ne waat même accord de défense yi dañ koy xoolaat de. Euh, Ablaye Wade euh, Njombor lañ ko daan wooyee. Euh, affaire soldat yi soo gisee mu wàññi leen ay ëppoon nañ fi junne mu delloo ko ci ñetti téeméer mais loolu programme Sarkozy la woon programme réduction des forces françaises en Afrique parce que amatuñu woon kattan pour maintenir des milliers de soldats Dakar Abidjan Libreville euh, Brazzaville et cetera loolu rekk la c'est dafa profitoo ci réajustement des forces françaises militaire en Afrique pour buggoo ko mel ni ci moom la. am mais def na ci jéego nag ba sur le plan économique même diversifier ses partenaires ah dem fële xool le chinois ak dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk ay turquie gi mais ah si Abdoulaye ba français sax mais rawoon nañ ko ci. ah yaa ma ko yaa ma ko yëgal. mais xam naa ne tubaab yi seen doole fii ci Sénégal wala ci Côte d'Ivoire. ñu jël ñaar ñooñu pour yem ci Afrique sowu jant. dafa yokk wàññeekuwul mhm. soo gisee seen fit dem léegi nii c'est que dañoo ragal ne bii pas moom du doon ay wax ay jëf la nga doon moo tax ñun nànk-nànk mooy jàpp golo ci ñay yàkkamtiwuñu mhm. euh, juróomi at la ñu am pour wane fi ñu jëm yàgg waa réew mi daganal nañ ko ci élection bi mhm. ndaxte suñu pour la première fois programme la ñu lal. ne ñun de soo leen ñu réew mi. programme bi nag ak lii ak lii lañ doyen programme bi nag tegoogul ah parce que li nga promesse yi gis nga économie cible am loo xamante ni diggoon ngeen ko ci wàllu poste yi mi ngi nii amut koom gi tamit njëgu dund gaa ngi nii. yaakaar nga ne. oui. ci lu matagul ñaari weer. mën nga soppi loo xam ne mu ngi fi depuis juróom benn fukki at. ngeen wax ko nag ci programme bi ne bu ñëwee ko du yomb ndax li fi fekk tax. Sénégal yi mën a xaar gëm leen programme projet la ñu wax. xam nga bokkul. voilà euh, léegi nag man ci préfère le programme ndaxte projet. mën nit am na am projet une famille peut avoir un projet une association ONG mën na am projet. mais en de projet ah. oui en mais mais le projet doit être formulé en termes programmatiques. dinañ ci ñëw. weesagul mais nak ndànk jàpp golo ci ñay ni ma la ko waxee. Mhm. fi mu ne nii ñu ngi soog a toog euh, euh, euh, signaux yi parti bi di yónnee seet ko ci di xew démb UCAD dal na xelu ndaw ñi nañ ko waxee noonu am na yaakaar ne bi ci kanamee lu muy gën di dem ak di taxaw ñi ni di mbooloo mi lay dal seen xel dégg maam waaye. xam nga am li ñuy wax ci werante xuuxaan daal. Mhm. Hmm. seetaane dàq si daje. voilà euh, mhm. euh, professeur. Mhm. Euh, yaa ngi wax sànq méngale visitu Mélenchon bi que coloré la quoi parce que daf leen jàppale woon. de l'autre côté aussi on voit qu'il y a les États du Sahel mooy waa AES ñoom tamit ñu am benn proximité bu ñu nemmeeku ak Pastef. quelque part on se dit est-ce que nii c'est parce que dañu leen jàppale woon ci bi ngeen nekkee ay jafe-jafe moo tax ngeen leen di soutenir ngeen bëgg euh, jokkoo ak ñoom wala euh, nu nu mu tuddati euh, ci li ñu nekk nii nga xame ni ay état la yoo xamee ni c'est c'est des putschistes comme ni ñu leen koy ni ñu leen di woowee da ngeen leen bëgg jël teg leen ci yoon maanaam ñu delloo réew mi ci démocratie. waaye ñaari bokkul dañoo sax safaanoo ndaxte ñun ak euh, la ñoom in Mélenchon ñun ñoo toll woon ci diggante ñu jàppale ñu. suñu mbokku Afrique sowu jant nag safaan wi la maanaam ñoom ñoo nekkoon ci diggante bi leen di CEDEAO di jéem a fexeel ñun ñu jàpp ci. Mhm. Macky moo gënoon farlu moo gënoon a euh, yitteel moom la gënoon a yitteel que ñu yëkkati ay armée wu Afrique dem ñu dal ci kaw ñu ñuy wooyee putschiste yi mhm. Macky Sall était prêt à envoyer l'armée sénégalaise ça a été déjà fait en Gambie euh, mhm. parce que Gambie tamit noonu la demee woon dañu bëggoon foqati nguur gi ñu yóbbu fa armée ñu delloo euh, nguur gi ki nga xam ne moo gagné élection yi waaw loolu dëgg la mais soo ko seetloo il n'y a pas une règle cest à amul amul benn euh, charte boo xam ne teg nañ ko. Mm-hmm. te saa yu xew-xew yi ne këtt na jonn rek ñu doxal charte bi. Mm-hmm. am na ay coup d'état le coup d'état bi ci gën a fës mooy Tchad ñu boom soldat bi nga xam ne moom coup d'état ko indi woon. Mm-hmm. Idriss Déby Idriss Déby Macron Diop daanu fa ne doom yi lay fal. ñëpp ne tekk kenn waxul kenn xeful moom moo fi ne ba nga nii barki démb la leen soi-disant def élection mu nga noonu le fils de bi dégg euh, man maa ngi ñëw rek ci ba tey rencontre démb bi à l'université yëkkat yëkkati nañ fa lu nga xamante ni aussi euh, ci pendant la campagne euh, mu nekk président Ousmane Sonko wala président Diomaye et cetera daan nañ koy faral di wax mu jëm ci wàllu monnaie locale. dafa mel ni que euh, go ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay mais golo ak monolocale gi dafa mel neexutu jàpp de. <laughs> gis nga euh, affaire koppar boobu. fa ngay ràññee doomu Afrique yi nga xam ne dañoo bëgg tabaxaat Afrique ci ay anam yu bees. ak ñeneen yi nga xam ne euh, waa bitim réew nañ ko waxee noonu lañ fiy toogal. réew ay njiitu réew yi tabax am réew te. moomuñu seen bopp ci wàllu kaarange maanaam seen sécurité wu bopp duñ ko duñ ko dénkaane yoruñu seen kopparu bopp boo xam ne lu leen neex def comme ñëpp moomuñu seen système scolaire jàngat jàng li ñuy jàngale seeni doom ñu leen di yaree ñu koy def ci làmmiñu jàmbur rien que ñett yooyu seen paj nekkul ci seen loxo ay assistant technique ñoo fi nekk di ñu wax di ñu war a def ñu war a def gis nañ ko ci Covid. Mm-hmm. yaa ngi may dégg yooyu yëpp yooyu domaine de souveraineté maanaam ay cër yoo xam ne am réew du ko dénkaane du ko jeebaane moo koy yor moom boo koy yoree moom ci boppam dégg maam te su fekkente ne ñoom ñi fi nekk ñi tiim réew mi seen bopp taxu leen a jóg. mbooloo mi ak askan wi ñoo leen soxal dañ koy diisoo ak waa réew mi pour ñu déggoo ci kàddu suñ suñu déggoo suñu amee consensus ñun consensus lañ koy waxee du am voté dañuy waxtaan bi juboo li ñu jàpp nag loolu la ñuy doxal loolu la assise nationale yi def. monnaie locale bi monnaie locale bi ndax lu mën a nekk la. wala bu mënee nekk yi tamit <laughs> conséquences yi ci am yépp ndax ñun mën nañ ko dégg. mën nañ ko dégg. mu ngoog. Mm. Euh, gis. te nga xam ne dugguleet danga koy da ngay dem ci ñi la ci jiitu pour sakk ci xam-xam mm-hmm. mu ne souveraine réew mu ko amul mënul jëm kanam mais réew yu bari am na ko te am ay ay jafe-jafe surtout ba ci euh, Nigéria Gambie Mauritanie très bien très bien par rapport à la monnaie économiste bi xam naa da ci bëgg a dugal tuuti kii ah. par rapport à la monnaie mhm. moi je pense que dafa am benn problème approche bu ci am d'abord ñu ñëpp d'accord nañu que dëkk su moomul sa taux de change mënoo am ay marge de manœuvre sur des cadrages macroéconomiques donc foog nga moom sa bopp si côté monnaie mais dafa am ay préalable yoo xamante ni foog ñu teg ko ba pare te préalable yooyu sentiruma ko ci projet bi baax na euh, parce que pour man pour que ñu mën a moom suñu bopp d'abord foog ñu teg trois scénarios te gisuma trois scénarios yi ci biir projet bi bu ci njëkk mooy ndax dañuy dem avec CEDEAO mooy scénario bu njëkk bi ban impact la nar am su les imports et les exportations deuxième scénario bi mooy Sénégal day dem moom dong mooy cest à Sénégal uniquement mooy dem. Hmm. ban impact la nar a am. Hmm. par rapport à nos échanges. troisième scénario mooy Sénégal di dem avec les pays de l'AES. mooy ñetti pays alliance Sahel bi alliance hmm. boobu. su boobaa aussi ban impact la nara am. beneen bi mooy en terme de réserve. kan moo nar a gérer les en terme aussi de garantie comment ça va se donc yooyu yëpp ce sont des mécanismes yoo xamante ni on nous a pas édifié sur ce genre de questions là. Mmh. maintenant le projet éco c'est l'existentiel. pourquoi ne pas aller vers un projet éco qui est déjà la état bi et tous les économistes sont d'accord que avec le projet éco parce que avantage zone. Mhm. moo la mën a permettre nga mën a nga bañ a déraper. imaginez à une seule fois Sénégal amoon monnaie unique am avec le régime précédent qu'est-ce qui va se passer. en en finir des planches à billets en en finir pour créer ou mhm. bien pour avoir euh, des voies électorales donc à chaque fois da ngay sóoraale du yow kese mais les régimes qui vont venir après toi. Mhm. très bien. cadrage boobu nag ngeen ko fas yéene defee. Mhm. très bien loolu mooy suñu souci un peu sur le plan de la monnaie. mais on est d'avis quand même a am monnaie ah, yokk ci rek ajouter question bi que le président Diomaye est allé en Côte d'Ivoire Ouattara moom mais évoqué fooy la question ci écho bi nag espérant comme mi ngi Nigéria xëy na dina fa waxtaanee monnaie bi tey. voilà alors euh, euh, di ngeen wax dafa xaw a bëri te wuute mhm. mais nañu tibb ci li mos a am. biir zone franc Guinée mu njëkk jël indépendance dal di sàkk kopparu boppam tubaab bi ak Senghor depuis Dakar di fabriquer faux franc guinéen pour yàq ko ba Mamadou Dia jàpp leen ci gis nga français yi nekkoon ci frontière ba di lijjanti loolu Mamadou Dia les a fait arrêter ñu teg leen prison Tambacounda ba mu dellu Dakar wax Senghor ne lii sëkku doon wax de moo am weddi gis bokk ci bi mu ne boo léegi waxu al jooju na woo na ñu euh, transféré tubaab yi ak guinéen yi ñu jàppoon ñu ne très dañoo évadé wu. Hmm. ci bëtul ci ba réer na kon soo bëggee def sa ba sa ba mu baax dañ lay xeex pour yàqal pour wane ne yow mënoo te bàyyiwoo mais ci bu yàggul am na ay pays zone franc yi génn gànnaara ngi nii ak ugu yaam Madagascar a ngi nii ak Ariala les pays les anciennes colonies française du Maghreb bi ñu jëlee seen indépendance au tournant des années cinquante comme nous mais ku ci nekk daa jël xaalisu boppam muy Tunisie di Maroc di Algérie bu ci mucc lu dëgg lu dinaar voilà donc pour lan ñun suñu waxee waxu moom suñu bopp rek ay yor suñu kopparu bopp wala doxal suñu réew ci suñu làmmiñu réew mi rek dafay mel ni suñu fit day dem loolu man lenn rek laa ko mën a lenn rek laa ko mën a expliquer mhm. mooy li fi tubaab yi yàggee mhm. ay xarnu xarnu di ñu noot ba nga xam ne armée sénégalaise par exemple yaf la France a fait plus de 60 interventions militaires en Afrique mhm. depuis 1960 le Sénégal et le seul la qui a participé boo xam ne chaque opération OPEX ils appellent ça opération extérieure Sénégal ànd na ci moo ak Maroc rek ñoo am loolu mais ci bu mujj bi opération turquoise loolu du génocide rwandais naar yi sax marocains yi sax demuñu mhm. mais Sénégal armée sénégalaise bokkoon na ci opération turquoise qui couvrait la retraite des génocidaires rwandais mhm. donc pour revenir à la question monétaire li Pastef wax leer na nañ dañu ne benn yor koppar joo xam ne Afrique sow jant koy séq bokk ko moo ñu gënal wante yàgg nañ ko wax waaye jëfewuñ ko ñett bi ñu gisee ne léegi ay réewu Afrique sow jant bëgg nañ ci def ay jéego yu takku ndaamal tubaab bi jóge Élysée jël avion am dem Abidjan ak i surgaam bi fa nekk dégg nga maam dal di ko ne ECO mooy le nouveau nom du CFA Macron et Ouattara Macron et Ouattara comme ça la main dans la main koppar yoo xam ne yéen ko séq di ko waajal benn doom tubaab dugg si ñëw seen ne léegi nii lay demee ndaxte nii laa ko bëggee kenn xeful de déggoo kenn kaas ko wante lii mu li ko firndeel mooy que su du suñu xaalis seen xaalis la mooy seen franc des colonies françaises d'Afrique c'est que c'est le parlement français l'assemblée nationale moo moo voté je suis d'avis mais sama sama naan la le débat a été euh, mal abordé ah, c'est ah, sama yoon wi dafa bëgg a wax yoon wi par par les détenteurs du ah, gis nga boo xasee ba ne damay changer monnaie dafa am ñoo xamante ni dañoo xaw a riscophile dañoo ragal euh, risque fopp autant pour dañoo ragal risque mhm. ñemewuñu cest à dañuy nëbb seen xaalis li mhm. sa xam nga la quantité de monnaie fiduciaire en circulation actuellement au Sénégal euh, le taux et énorme mais gisuñu xaalis bi en circulation parce que y a la thésaurisation mooy tey jii dañuy changer monnaie plus la fausse monnaie oui dañuy changer monnaie man sama xalaat yëpp mooy li ma jot a denc nu ma koy def sama xalaat mooy su may investir en tant que investisseur est-ce que war naa ñëw dëkk boo xamante ñoo ngi prévoir changé est-ce que du ma toog ba carte gi leer may soog a ñëw donc loolu fuite d'opportunité lay créer mm-hmm. alors sëñ ba su ma yeggalee xëy na loolu dina dina na tontu mm-hmm. donc li ñu gën mooy ñu am koppar bi ñuy seet ak réewum Afrique sowu jant. on est d'accord là-dessus. Mm-hmm. mais yàgg nañ ko wax te. mais mais y a un projet ECHO qui est le projet ECHO il est là. de de les premières euh, volontés de l'unité monétaire ça date des années on est dans les années 2020 bientôt les années 2030 donc xam nga loolu soo loolu rek ngay toppatoo mun na am à la fin du siècle prochain tu seras encore là donc muy benn mais parti bi nee euh, su fekkente ne loolu mënul gaaw a sotti buumu jaan bi ñu teg ci suñu koppar mënuñu ko wéyee ndaxte duñu dem décennies yi ñu weesu firneel la ko. fekk ñu ngi ci loolu sax ci loolu fen nañ dul dem du point de vue économique donc léegi. su loolu na la sotti mais il faut que ñu sàkk pexe sàkk pexe bi mooy au lieu que ñëpp bokk mennum koppar ñu seet ñoo xam ne ñoo bokk yoon ndaxte xam nga euh, li wolof di wax rek soo bëggee ànd foog ngeen bokk fi ngeen jëm bokk fi ngeen jublu bokk jikko bokk gis-gis hmm. waaye su fekkante ne yow ndar nga jëm man may jëm si gi coor su suñu yeggee Diamniadio foofu ñu tàggu. d' accord ñu wax ci panafricanisme boobu ba léegi seen stratégie bi comme nee nga Diomaye moo yor. Mm. oui moom lay moom lay moom lay tojal ni te stratégie bi. Mm. stratégie bi très rapidement oui parce que on a quelques questions bu terminé ah oui avant allez-y terminé mais je crois su fekkente ne sottiwul au lieu que mu doon fukki réew ak juróom-benn suñu amee ñaar ñett ba ñeenti réew ñi nga xam ne mën nañoo déggoo ci seen koppar ci njëlbeen. ñu ànd ak ñooñu ginnaaw mu doon dëgg ci ñoom ci ñu farlu ci waaye ñàkk pexe pexe la su dee amuñu kenn ku ñu àndal te mënuñoo ñàkk am suñu kopparu bopp bu boobaa dinañ demal suñu bopp ñun kenn. ci noonu nag parce que ay ñaar ñetti réew am na ci réew yoo xam ne am nañu yenn jëmante xam na ni mënut a nekk ni kët na joon mooy putschistes yi. Hmm. Euh, gis nga président Sonko bu Pastef nee na dina leen euh, seeti. waaw te démb dans les discours moom on a l'impression que les gens ont essayé de justifier même les coups d'état ce qui est ce qui est grave Mélenchon dans son discours est-ce que même Sonko est-ce que coup d'état mën nañ koo layal. sëñ bi sur les centaines de coups d'état qu'il y a eu. dans l'histoire de l'Afrique indépendante sitel ma ci juróom ñoo xam ne tubaab yi maanaam ancienne puissance coloniale yi du français yi rek de anglais yi portugais yi ak ñoom seen sababuñ ko. ñoom ñoo tàmmal coup d'état soldats yi nga xam ne ñoom ñoo leen formé. waaye baaxul coup d'état baaxul mu ngi noonu eh, élection bi ñuy truqué nag baax na. c'est ça la force ou le droit nu on a choisi le droit. nga hmm. xool liñ ci fekk ñaata élection lañ fi rajaxe. tout carte yi gaa yi génn ne il est élu au premier tour. Sénégal. fépp Sénégal y compris Sénégal. waaw 88 la gëj nettali nañ ko fi sànq mais mais am na nag euh, fausse note quand même gis nga la presse la relayé ci affaire borom ñaari tur yi le débat la quelle fausse note. non je dis hier. dans dans les débats aussi. Oui. le débat sur l'homosexualité oui. la réponse de Ousmane Sonko parlant de que ni dañ koy tolérer fii est-ce que loolu aussi du du bourde. waxul loolu de au contraire. taxawaayu Mélenchon. non dans le discours non je sais bi bi bi discours il a été ferme mais bi muy tontu nii moo se toléré gis nga la presse daal lay <laughs> la presse. en français daal. Mm-hmm. Euh, mu ngi daal mais euh, sur la question de l'homosexualité c'est très important. Mm -hmm. parce que euh, euh, Cheikh euh, Anta dit que vous avez deux berceaux culturels dans l'humanité mm-hmm. le berceau méridional africain et le berceau septentrional euh, eurasiatique. Il dit le berceau africain est matriarcal, mhm. alors que le berceau eurasiatique et patriarcal. Ce qui distingue les deux systèmes mooy mhm. cëru jigéen ci société bi. Mhm. xoolal fi ñu teg suñu yaay ñun ak suñuy soxna. fu kawe waaye. yi bëggee. wéyal mhm. sëy diggante góor ak góor wala jigéen ak jigéen mhm. te pour ñoom dara nekku ci ah parce que euh, c'est le statut de la femme dans la société qui explique ça bref ñun daal sur la question de l'homosexualité bokkul suñu aada bokkul suñu cosaan kenn duñu ko imposer or loolu la tubaab yi di jéem a def dañu bëgg ñu soppi suñu ay sart pour ubbil bunt loolu nga xam ne. africain yi. dañoo jàpp ne. léegi criminalisation bi kon fu ngeen ci tool amoon yéene bi en tout cas du temps de l' opposition doon ngeen ko yéene léegi vous êtes au pouvoir. pour criminaliser euh, l'homosexualité dëgg yàlla loolu ma la ci wax fenn parce que mosuma ci waxtaan ak euh, mosuñu ko def un point de débat à au politique. Mm-hmm. te xamaguma dégg nga euh, ndëgam sax tal nañu ko. mais le moment venu fi ñu taxawoon. fa la ñuy sax waaw parce que du mbirum gis-gisu d'un homme politique ou jiit aada ak cosaan la kenn du ko wëlbati par décret ou par loi scélérate nit ñi am na ñoo xam ne pour ñoom mënta nekk ak loo xam ne moo jaadu te mënoo ko soppi ci xel xalaatu nit ñi Euh, par des décision administratives ou parlementaires. Hmm. fa laa mën yem ndaxte wax dëgg yàlla tal nañu leneen lu dul ay affaire maintenant nag démb. Hmm. li ma ci neex. Hmm. c'est que euh, bi euh, Ousmane Sonko yeesalaat suñu taxawaay. ci yooyu LGBTQ ni ko waxee. Mélenchon dafa reprendre la parole fekk Sonko waroon a tëj wax ji. daal di moom tamit. Ah, ne woote voilà. assumer sa position. la position des occidentaux des, du berceau sa culturel. position comme moo wax dem on peut dire euh, c'est sa position rek. Oui, yi c'est vrai que ñu ngi koy. ñi ngi jaar fu ne pour dugal ko fi. et c'est mais fii nag c'est pas tolérable fii moom nekk. mënut a nekk. nu mhm. mu nekk du mën a nekk. jërëjëf. Mhm. kontaan nañ trop ah. c'est toujours un plaisir. de vous recevoir ah. ci dëgg ndax yàgg ngaa taxaw combattant ah. merci <laughs> yàgg na depuis depuis cinquante ans njëriñ njëriñ laa ngi soog a dem nga ci kaso lor na la ci ah macha allah. waaw waaw ñu ñàkk seen bakkan. voilà ñu ñàkk seen bakkan macha quatre-vingts il quelques semaines. voilà kii nga feex nga bi nga déggee jour 24 mars bi ah ñu ne gagné ngeen. waaw bég bégte lañ ci jëlee. Hmm. waaye nag ñu de. deewuñu. waaw nañ ne li ci. metti mu li ci gën a metti ngi suñu kanam. merci beaucoup merci docteur Diallo Diop. vice président si motu boobu. yàgg ngaa sonal français moom ba Pompidou di ñëw Sénégal yaa ngi sonal. merci yaa ngi koy cortège. merci beaucoup docteur <laughs> jërëjëf jërëjëf merci beaucoup docteur Diallo Diop moo nekkoon ganu Infos ah. léegi léegi ñaari yéen i ku Futurs Médias muy l'Observateur ak Record.